asalaamaaleykum cousins internautes de Wasari TV bienvenue dans votre rubrique K sur le plat wurus clip Wali Ballago bohane boo xam rémi mooy un clip réussi avec bio Nil Don doon xaar ci maison de production musicale yoo xam ne ñoo Sénégal hormis les paroles les rythmes la mise en scène qui attire également mais le ma ci gagne la beauté de la femme noire ébène gis ngeen regard boo xam ne kii di Amy Léa moo xaar Wally j'ai adoré vraiment j'ai adoré te xam naa Sénégalais yëpp yëpp ñoo kontaan maanaam si clip bi clip bi dem koy seetaan te doo su mukk quel est décor bi le scénario les tenues tout est magnifique en tout cas il faut que ñu féliciter bu baax a baax Audace Production bu ñu tuddee Audace Production nag kii Issa Diouf moo si Momo bu Pod ma Marichou bravo à toi Momo moo créé di maison de production Audace Production xam ngeen ko moom si une maison de production bu ñu de Marodi TV maintenant nag dafa jël yoonu Bopom, d'aller di créé maison de production tuddee que Audace Production mention spécial à toi parce que clip bi naaj na trop trop gis nañ tamit ay acteurs yoo ne wala actrices yo, bëri yoo xam ne tamit ñoo ngi Euh, si yenn série yoo xam ne maison de production boobu numéro TV ñoom ñoo si nekk ku si mel ni Amy Léa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc bravo à toi kii di Momo moom moo def lii di production boobu maison de production tudd Audace production waaye te dafa am leneen loo xam ne moo ngi xaw Sénégal xam ngeen ni Wally Ballago Seck keroog tamit moo doon tëgg fële sa Vogue invité Viviane mu def coow ñoom ñaar ñi daal toj foofu mais dafa am keneen koo xam ne tamit moo ngi fa woon muy kii di Bastoun Bastion moo ngi maison de production boobu di Subatel Subatel tudd tudd kii di Diop maison de production à chaque fois une concurrence kii di waa donc est-ce que Bastion du problème wala est-ce que kii di Bass dafa bëgg changer maison de production daal di fekk ci kii di Wally Ballago Seck donc yëpp ay question loo xam ne dañ koy poser parce que tey bu ñu gisee concurrence boo xam ne moo ngi am si kii di Sidi Diop ak kii di Wally Ballago Seck ñi gis beneen artiste boo xam ne moo ngi nekk si maison de production boo xam ne si Sidi Diop fa la nekk mu ñëw si ay soirée Wally Ballago Seck il faut que tamit ñu taxaw tamit gëstu si est-ce que dafa am lu xew wala du juboo mooy bëgg am en tout cas mu doon loo xam ne Sénégal yi bëri ñoo ngi koy posé wu loolu waroon tax ni cas sur le plat mesdames et messieurs li leen loon tey jii nii si cas sur le plat d'un jour jox dig daje beneen yoon et n'oubliez pas de manger beaucoup de bananes et de vous abonner sur Wassare TV avec Momo merci beaucoup